asalaamaaleykum mbokki internet yu Hann TV dal leen ak jàmm ci seen actu de la journée tàmbale ko ak coowal Ousmane Sonko di woy di lëmbe réew mi ginnaaw ab coowal yoon moo ko topp ginnaaw ab plainte boo xamante ne ab masseuse yëkkati na ko di ko tuumal viol ak menace de mort waaye rekk kii di Ousmane Sonko daal dina ko weddi tuuma bi ñu teg ci ndonam di wax ni complot la bi njiitu réew mi Macky sàll di ruumanaat waaye

këru Mahmoud Saleh ak Mahmoud Diallo ay bus Dakar dem dikk ay oto jàmbur yu ñu taal tamit ci lu toll ak 45 ndaw bokk ci ñi doon manifester daal di nañu leen jàpp loolu yëpp nag ñu mën ci tënk que enquête bi bouclé nañu ko ba jébbal ko procureur procédure yëkkati Marlan kiraayam daal dina door. depuis tàmbalewu affaire Ousmane Sonko bi nag daanaka bëri na ay plainte yu ay jigéen déposé lu ko waral rek moo di seeni photo yu ñuy jël di ko naatable ak masseuse bi porte plainte Ousmane Sonko Awa Thiam bokk ci victime yi moom mu nekk borom jëkkër ak yaay ñaawlu na ñàkk professionnalisme si yenn si journaliste yi te di leeral du masseuse tamit depuis bi ñu publié photom indil na ay jafe-jafe ba mu porte plainte di sàkku ñu ko ay jéggal ba effacer publication ou tagat yaram ak ñaari tali mi ou pap Thiaw ci équipe am ancien international sénégalais bi nak ñong de ko ci saison 2019 2020 ngir mu sauver équipe bi ci wacc ci fàttali ñaari ci dernière place championnat bu Sénégal ak point cap coronavirus ay situation bis bi ci 1329 tests yu ñu amal 188 cas lañu ci 61 nek ay cas contact limu cas communautaire yi mi 127 nous am 212 guéris ak 58 cas graves wayé di batay di 11 nouveaux décès